gone yi jàpp nañ ci lu toll ci cinq cent cinq mille cinq cent soixante quatre bodi juróomi junniy bodi ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent xam nga ne loolu ñaaw na tam-tam ay mbënd tam-tam yi nga xamante ni bii sëñ Ablaat dafa tere woon tëgg ci dëkk bi te képp ku ne ci dëkk bi war koo baax sëñ bi bëgg ko jàpp nañ téeméeri tam-tam téeméeri mbënd ak juróom-ñett fukk ak juróom benn 186 na di joxe tuberculose 1501 e, laxasikoon jàpp nañ ko junni laxasikoon ak juróomi téeméer ak benn jàpp nañ ko dëkk bu sell bi di Tuubaa ci ci fii lañ ko naroon a muqee te baaxul naka noonu ay ay patin patin booy yi yor ay patin di daw di solo nit ñi di di nit ñi jàpp nañ ci fanweer ak juróom benn Risala jàpp nañ ci 688 Risala juróom-benn téeméeri Risala ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett euh, pon jàpp nañ ci 71 paquet yi pon casquette jàpp nañ ci 17 ndax cap dañuy dañuy tere jigéen bu ko sol ci Touba jàpp nañ ci fukk ak juróom-ñaar cassette jàpp nañ ci 29 cassette nag moom bu ma ko tuddee mooy kaset yi ñuy. yi nga xamante ni bii lañ cay wane moom ëpp naa tudd loolu moom jàpp nañ ci euh, ñaar fukk ak juróom-ñeent te ñi ko doon jaay dañ ko doon jaay ay nit ci dëkk bi ñu di ko seetaan te loolu baaxul. Renault quoi waaw. Euh, briquette jàpp nañ ci fanweer ak juróom-benn ñi ko doon yor mooy ñi koy mooy mooy taal li ñuy tux mannequin jàpp nañ ci juróom-ñaar mooy loolu nga xam ne l'islam da koo tere nit ki nga defar jëmm mu jot jëmmi nit te yurut ak loolu l'islam da koo tere jàpp nañ ko. ay palais football jàpp nañ ci cinq mooy yi ñuy footballé noonu portable. cinq jàpp nañ ci quarante euh, jàpp nañ ci ñaar vélo jàpp nañ ci quarante sept ordinateur ñu jàpp ci benn juróom-ñaar waaw ñeent fukk juróom-ñaar voilà da ko sëy USB clé USB ñu jàpp ci juróom-ñeent euh, oh lii de moom doy na continuer waaw ma wax ko wala. waaw mais waaw jigéen ñi jaay seen bopp jàpp nañ ci fukk ak juróom ak juróom-ñett. trafic yamba mooy ñiy jaay yamba te te jàpp leen jàpp nañ ci 97 euh, nit yoo xam ne noonu jaay yamba. loolu nag danañ ci sant bu baax gendarmerie ak police ndax ñoo ci jàpp te kuñ ci jàpp. la ca war danañ ko def danañ def procès verbal yi PV yi ba jébbal a procureur. wax ko jolof ko dee ko la jolof. waaw juróom-ñeent fukk juróom-ñaar. juróom-ñeent juróom-ñaar jàpp nit ñuy jaay yàmba ñu koy tux jàpp na euh, euh, la waaw. ñaar ñaar fukki euh, juróom fukki biteel ak ak juróom-ñaar. paquetu cigarette jàpp jàpp nañ ci 1112 paquetu cigarette junni ak téeméer ak fukk ak ñaar moto ñi jàpp ñiy supporter moto moto dañuy tere ku supporter jigéen ci moto jàpp nañ ci euh, jàpp nañ ci 37 fanweer ak juróom-ñaar gën gën yi ñuy tuxe gën yi ñuy tuxe jàpp nañ ci 381. ñetti téeméer ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn. bouteille sàngara jàpp nañ ci 36 babi jàpp nañ ci benn ndax babi fooy babi yooyu ñuy fooyee dañ koy tere ndax dongo yi jàng alxuraan daanaka moo tax benn dong nangu tudd a euh, jigéen ñi nga xamante ne bii euh, dañ leen a jàpp dañ doon sol naka sudul noona ñu delloo ñu liñ doon sol euh, jàpp nañ ci ñaata 199. màggal ak léegi. màggal ak léegi. 179 179. màggal ak léegi waaw. waaw. 179. tetuwaas ñi nga xamante ni bii góor ñu tesu tetuwaas jigéen ñi dañ koy tere jàpp nañ ci fukk ak juróom-benn borom ñaari tur yi. olof eh, jàpp nañ ci juróom-ñaar mooy ñi ñuy wax borom ñaari tur góor jigéen ñooñu. ñeent juróom-ñeent waaw juróom-ñeent ay kër tamit. jàpp nañ ñaata kër fukki kër ak juróom-ñaar nangu nañ ko yoo xamante ni seeni borom dañ doon def nag su dul noona ñu jox leen avertissement ba sonn nanguñu ko bay ñu nangu kër yi joxe ko léegi kër yooyu nag sëñ bi dafa am leeral bu ci bëggoon a leeral ñi ñu seen i kër buñ jàpp ne mukk kër yi dañ koy jaay wala ñu koy jox keneen kër yi ay sëriñi daara lañ koy jox dañuy xool ñi nga xamante ne bi ñooy sëriñi daara yi di jàngale alxuraan te amuñu fu ñu nekk ñu jox leen kër yooyu ñu fay jàngale alxuraan kër gu doon borom doon jaayee yàmbaa wala muy def naka su dul noonu léegi buñ ko nangoo boo fa boo fa demee sëriñ ñëpp daara nga fay fekk muy jàng alxuraan. Euh, kilo pon jàpp nañ ci vingt kilos 20 kilo pon ñaar fukki kilo pon jàpp nañ ko. ay bongo yi nga xamante ni bii dañuy tëgg ay bongo di ci di ci yooyu yooyu ñuy tere noonu jàpp nañ ci fukk ak juróom-ñeent. Euh, rose. rose ber rose waaw xeetu ñollu la inna waliyallahu hasbi allah wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib nawwir fuadiya wa lisrah sadri wajhal jihadiya ka yawmi badri mbokki jullit yi taalibe murit yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte mu ci jataay bi nga xam ne baaxoo nañu ko amal at mu jot wala ay weer yu limu yu nekk ñu di ko amal saa yoo xamee ne liggéey bi toll na fii ñu daje ci barab bu mel nii di ko fi liggéey ñuy jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Khadim Rasoul di ñu koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi tamay ko di nuyu mboolem mbokki taalibe yi fi teew yépp di nuyu kilifa yi fi teew ci jataay bi yëpp ngir wuy si woote bi nga xam ne moom lañu ñu amal fii tey ngir rek firndeel ne liggéey bi ñi koy dégg ñëpp du mën a ñàkk nag léeg-léeg ñu am waxtu woo xam ne dañuy ñëw ngir kenn ku nekk am loo teg sa bët loolu moo waral jataay bi di am ci waxtu yi dem lenn luñ ñu signalé ñooñu brigade de recherche boobu ñooy njëkk a jóg dem def liggéey ba ca war ba sellal ko ba mu doon lu wér ndax bëgguñoo wéy ci xalaat yoo xam ne nit ki day demalee ko fekkale wala mu mere nit ki bëgg cee def ay règlement de compte loolu dañ ko dul man duñ ko nangu itam ñi ci bokk di ci liggéey itam ni ñu ko waxee rek pas-pas moo leen ci dugal waxtu wu ne teewul nag ñuy segg ndax mbooloo fu mu daje dana am yoo xam ne dugg na ca te bokku ci waaye lépp lu ñu ci ràññi ci kooku ci bëgg bokk ba bokk ci biir ba noppi def ci naka sudul noonu kooku moom duñu ci indi benn maslaha ci biir dañuy daal di woote nga ñëw ñu nangu sa carte membre bi nga yore woon ndax da cee am ñoo xam ne ñi li ñuy doyee carte membre Safinatul Amaan xam nañu ko ndax ñooñu euh, lu dul réunion léeg-léeg doo leen gis wala ndaje yu demee nii du ñu nangu nag kenn yor carte membre Safinatul Amaan di ko défendre sa bopp ci lépp loo xam ne lii yaa ngi cay dugg boo tasee autorité police wala gendarmerie wala leneen nga yëkkati carte membre bi signalé ko pour mu xam ne membre Safinatul Amaan nga te yow lëggéeyaloo safinatul amaan na mu ware loolu du ñu ko nangu moo tax am na diir boo xam ne ku ñu ko gisul wala liggéey bi lañ la ca soxlaa defoo ko dañu lay woo nga ñëw ñu récupérer carte bi ñu la joxoon leeral ñëpp ne bokkatoo ci safinatul amaan du ñu ci doxee loo xam ne wëllëre la wala xarit gu yàgg wala lenn benn affaire u sentiment duñ ko ci def ndax liggéey bi itteel nañu te bëgguñu itam sëñ bi liñ ko ci yéene bëgg ko ko cee liggéeyal mu ciy dégg dara lu dëppawul ak yoon moo tax képp koo xam ne yaa ngi ci biir safinatul amaan dañ lay wax ne responsabilité bu rëy la te say engagement yu rëy nga war a jël te li ci jiitu mooy nga jub yow ci sa bopp da ngay jub ba noppi di jubal parce que boo dee tere nit ki la nga koy tere dangay fexe ba bañ koo def te bu ko kenn ci yow lépp lu la jege sax war ngaa moytu loola ñu di la ca joxañ moo tax kooku duñu mën a may kenn nag mu bokk ci kuréel bi ba noppi mu bokk ci allo ñu bokk ci kuréel bi ba noppi di wëlbatiku di def loo xam ne dañ ko ci mën a joxañ ne lii moo ko def te loola bokk ci li ñuy tere loolu moom ñu ci maslaa benn yoon dañuy daal di woote teg mbir mi ci yoon loolu ñu ci bari jaar nañ fekk ñoom ba jàll ndax li ñuy njëkk def bu fekkee membre bu ci yàgg nga danañ la suspendre lu mat 6 mois bu laajee yokk ñu yokk ko ba un suñ demee ba war laa raje nag ñu nangu sa carte wane ne bokkatuloo ci safinatul amaan mais erreur boo def lu mu tuuti tuuti buñ la joxee avertissement nga dellu defaat ko danañ la suspendre 6 mois mooy bi ci jëkk nga tollanti ko ñu def ko un an bu bu ko ñetteelee nag boobu ci lañ lay raje définitivement dootoo bokk ci liggéey bi ndax dañ dul bëgg nag loo xam ne nit day làqu fee di ko def ñu di ko ci joxoñ ba noppi loola di tuuse mbooloo bi yëpp moo tax ku ciy bokk na nga seetaat sa bopp ndax liggéey bu jafe la ndax bu fekkee sa jikko am na lu ci desoon sax war ngaa seetaat sa bopp ndax mën nga cee bokk war warulee cee bokk parce que duñ nangu ngay wër di tere loo xam ne yow kenn jiituwu la ci wala nga ciy laal dara kooku duñ ci sax maslaa ci lenn kon waxtu wu ne loolu lañuy ñuy fàttali ñu ciy liggéey teewul nag ñi nga xam ne bañ ci duggee yàgg na ñi ngi ciy liggéey te ñi ngi góorgóorlu di sellal di moytu yooyu yëpp nga xam ne nag doomu aadama moo mën la ñàkk njuumte di am njuumte yooyu dañ koy nangu ndax doomu aadama moom matul lekk léeg am njuumte yu ko dal njuumte yooyu bu amee nag bu ko nangoonee ne juum na loolu bu ko jégguloo mën nañ koo jéggal loolu te wan ko yoon wi mu a jaar mu xam ne juum na waaye nag suñu borom tabaaraka wa moom mi nga xam ne sax moo wax ne damay jéggale ñëpp nee na teewul li ma lay mën a jéggal muy bàkkaar mooy bi nga xam ne soo ko tuubee dootoo ko defaat waaye nee na bàkkaar bi ngay def di defaat nee na boobu duma la ko mën a jéggal ba mukk dama koy boole ci dossier bi nga xam ne bu yomal xëyaamee dama koy càmbar saytu léegi nag jéggal googu ni mu la koy misaale mooy nee na nga gis ay xalit sawara yu tàng nga joggi ci sa tànk te teyuloo ko nee na ni ngay yëkkatee sa tànk doo xoolaat xal di ko ci tegaat nee na boo tuubee tuub mel noonu ma jéggal la lii itam koo ci xam ne def nga njuumte nga nangu ne juum nga ci loolu léegi min hablil warid la alquran wax loolu nag tax na jéego bu ñu jéego dañuy jàpp ne defaguñu dara kon bu waxee moom nekkat na mel ne liggéey bi mi ngi door a tàmbali kon nun lool day gën a dalal suñu xel ne wane ne kat kilifa yi fi jaar yëpp tàmbale ko ci sëriñ Saliou mi santaane woon liggéey bi te lam ma ci mujje wax mooy day na ngeen góorgóorlu te xam ne lu fi war a dañ rek yéen a ko fi war a dindi kon bu leen ci deltu ginnaaw benn yoon ma ne ko nag na nga ñu ñaanal ñaanu baatin mu ne mag kuy liggéeyal sëriñ bi boo ca jiitalee Pastef lor du la ca fekk mukk loolu nag ñu doyloo ko di gis muy gën di leera jaar ci Cheikh Mamadou Amine Baara mu àgg foofu daldi wax ne liggéey bii day man maa ko waroon a jiite ak keneen ku mel ne man ñoo waroon a ne ci kanam daal ne nag kon képp ku mën a ñëw ak ku mën a doon it lu jëm ci liggéey bii na xam ne ci seen ginnaaw lay topp waaye ñëpp a ci yem ñëpp a ci war a yëngu sëñ Sidi Maxtaar dégg nañ li mu wax bis woolu nañu ñu ñëw mu ne dey su fekkee maa fi nekkal Serigne Touba na ngeen xam ne làq ngeen ci ngërëmul Serigne Touba waaw ndaxte liggéey bi yëg naa ko te ñor na ma te xam naa ne Serigne Touba nangu na ko Serigne Mouhamadou Mountakha mi itam gën ñoo soññ ca fekk nag ñu xamoon cofeelam ci liggéey bi ndax diirub liñ ciy liggéey mosuñ cee umpanteeg moom waxtu wu nekk ni ko sëñ Seex waxee léegi fu mu ñu masaan gis dañu ciy soññ di ñu wax liggéey bi ñor bu mu ko ñor di ñu ci joxe xalaat di ci ànd ak ñun di ñu ci wetti ba ci sëñ Isaaxa mii mu tudd sàng moom waxtu wu nekk mën naa la ne bi mu nekkee bitim réew te ñibbiseegul euh, nekk ca Turquie fa la ñu daan jote ay téléphone di ñu encouragé di ñu wax liggéey bi am na bis sax ñu toog ak moom ak sëñ Muntaxa mu di ko wax njariñu liggéey bi ak di ko ci soññu loolu lépp kon mel na ne nun sëñ Muntaxa moom amul dara luñ ko ci jàngalaat moo tax bi mu toogee mu jël yëf yi ak loxoom mu ñor ko xom xam na liggéey bi lu démb tey soog a ñëw loolu it nag mu gën ñu cee soññ ba li ma mujjee wax ak moom ci démb dama ko ne daal nun li ñuy ñaan yàlla mu yàggal la fi bu baax te may la wér ndax xam nañ ne bu boobaa lépp lu des ci liggéeyu mag ñi dana sotte ci sa loxo te loolu nag lañ koy ñaanal ndax xam nañ xel pëstéefam ci Serigne Touba bari na loo xam ne lii nag wax naa ko ko itam nee naa ko bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ne maase wuñ woon nangul ñëpp. te yow am nga sens boo xam ne ñëpp maase nañ nangul la te mboolem ñi la nangul ma ne ko ku ci ne am na lu ko yàlla cërale loo xam ne kenn fekku ko ci kon yow mel na ne li nga nanguloon kilifa yi ak say wayjur moo la may loolu ndax safinatu amaan bii bi muy door dama ko wax sëriñ Saliou ma ne ko gis nga sëti sëñ Touba yi toog li nga nanguloon seen wayjur yi ba loo bay jox leen ko loo liggéey teg ko ci seeni loxo moo waral ñoom seeni sët seeni doom tey nga xam ne am na ci ñooñ jàkkaarloo wu ñëw seen i wayjur ba di ko liggéeyal ndax wuy ji nañ seen ñoo ñooñu fas yéene mottali liggéey ba leen waroon ci seen i wayjur ci sa jëmm jii kon la nga nangu loon sëriñ njabootu sëriñ Tuubaa gi ma ne ko moo la may lii tey sëñ Muntaxa mi itam loolu mu nanguloon kilifa yi nangul ko ay magam nangul ko ñëpp muy pësteef ak bëgg sëriñ Tuubaa loolu moo ko may lii tey kenn ku ci nekk am nga pas-pasu jege ko am nga pas-pasu jàppale ko te ci safal la tàmbalee kon moo tax ma ne ko buñ sañoon noonu il faut nga gën ñoo sakkanalal sa jëmm waaw nga gën ñu koo sakkanalal ndax sëñ Seex loolu dafa am kàddu gu buñ ma wax ne sëñ Abdou Khadir daana ko wax danaan wax ne nit ñi ku ku leen topp ci seen bëgg-bëgg boo sàggantul danga ci loro ndax ñoom ñi ñëw ci yow mbooloo lañu te yow kenn nga mu ne mbooloo lañu te yow kenn nga te fuñ la ñoppee gis seeti keneen kon nag yow yaay xam ni ngay sakkanale sa bopp waaw te ki mboolem ko fi nekk jataayu Serigne Touba moom ñii ñëw ñëpp seen bopp leen fi mooy Serigne Touba lañuy ñuy te xam nañ ne fii la ne ki nga xam ne nag boppam a ko yëkkati te moo ko ñor kooku moom jërul sax euh, na jokkoo téléphone ñu jokkoo téléphone ñu waxante la ñuy waxante te waxtu nekk may nañu ci boppam loolu wax dëgg yàlla loolu noonu yàlla rek a ñu ko mën a fayal ndax ku bëgg a liggéeyal Serigne Touba nag jaadu na. ngay gis koo xam ne dana la ci soññ te mat la ci kilifa te man la cee xelal man la cee wommat mm-hmm. kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax di sant bokki taalibe yi fi teew yëpp di sant itam ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ yu ràññiku ci biir Safinatul Amaan ma des na caa tudd ñenn rek ñu yóbbaale ñi ci des ndax dañ koo ber ay ay xaaj yu bare bare waaye ñu mel ne kii eh, Serigne Cheikhouna Mbacké mii ku ne xam ne taxawaayam ci wàllu information bi maanaam communication moom Mouride Mbaye mi ñoo ko ñoo ko ànd ak Serigne Ahmadou Diakhaté nga xam ne moom ci ñu yoree waxtaan yi ñu def ci quartier yi la bokk loolu taxawaayam di mbokk di lépp yëg nañu ràññikoom ku mu ràññiku ci liggéey bi euh, ku mel ne ki Sayar Diagne Male naka noonu daale bi sëñ Modou Abdoulaye bu sëñ Mouhamadou Basir Moustapha Basir moom itam kilifaam jox ko ndigal bu dégg bëccëg moom yi yëg nañ cawarteem ak liggéeyam ak farlu bu ci farlu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko seedeel ay kilifaam euh, di wax ku mel ni ay masayar ja nga xam ne moom it lépp lu yor wàllu daaf bi moo ko yore secrétariat bi yëpp lépp lu ñuy bind wala lu ñuy tàppee yëpp ak loo bëgg a xam ci wàllu information boo demee foofu ci ordinateur yi moom masayar ja moo lay leeral yooyu yëpp ak ku mel ni taal Tall taalibe sëñ Moussa Nawel nga xam ne moom it jëwriñ la ci ñi ñuy jox cadeau yi la bokk mais ñu yëg ne yi lii ab tàmbali la te ku mel ne Galas Diouf mi Fallou Galas Diouf di membre boo xam ne ci membre fondateur yi la bokk yàgg na ci moom it moo indi xalaat bu rafet boobu waaye ñu yëg ne nag dana gën a yokku dana gën a dolliku ba kenn ku ci ne xam nañ li ngay yëngu ci biir ba ci ñi ciy joxe xalaat kese sax danañ leen mas a sargal fii jox leen cadeau loolu lépp noté nañ ko ñu bàyyi ko xel ba ci service su média bi ñi nga xam ne média lañu te nekk ci département bi ñooñu ñëpp it yëg nañ ku ci ne sa taxawaay ak la nga ñu cay jàppale yëg nañ yëg nañ ne Safinatul Amaan la itteel la ak ñi ci maye ay émission ci rajo yi ku mel ne ki Omar Ñing danaa ko yóbbante sant ci ñi ko bokkal ñëpp euh, taxawaayam ci RTS ak ñeneen ak ñeneen fii nag ak Lamp Fall ñoom it seen taxawaay yëg nañ ko ci télévision bi ak ci rajo bi léeg-léeg sax ñu invité fii ba Dakar ay émission euh, ñi ci war a dem dem ci loolu nag tax na ñi yëg ne am na ñoo xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu média bi mais ñi ngi jox orma Serigne Touba ci dëkk bi am na ci ñoo xam ne nag ña ngi jalgati orma Serigne Touba ci dëkk bi ñooñu nag xam nañ leen ràññee nañ leen waaye ba dañ leen a alak ci saayir ci baatin la leen Serigne Touba di alak ndax kenn ku ci nekk booy yëkkati kàddu gu ñaaw wala nga yëkkati xalima di bind ci lu laal ci Serigne Touba te gëstuwoo ko ba mu leer la lu dul dangaa wëlbatiku di bind la la neex ak di def la la neex ngir yoonu murit am fu mu la toll nga bëgg caa wane sa taxawaay ak sa tolluwaay loolu seqoo ko kenn Serigne Touba nga ko seqal te Serigne Touba moom dong moo jaxasoo woon ak noon yi ba ñëw ne xafawtu anil ahda i turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfa'u waaye nag bu boobaa fekk na ña nga xam ne ñoom la àndaloon muy ahlu badrin def nañ la ñuy def bu yàgg sëriñ bi kenn mënu koo yàqal manis na koo liggéeyal nag ba defaru ci waaye kenn mënu koo jéem a yàqal ku ko yàqal sa bopp ngay yàqu nun nag xàmmee nañ lépp waaye am na ci loo xam ne dañ koy bàyyi sëriñ bi mu fajal ko boppam ku ci lëggéeyal sëñ bi nag da yokk waaye koo ci xam ne xeex sëriñ bi ak xeex yoonu murita la itteel ca la ngay defa kus néew nga di ko ca feeñal di ko ca jëf te tegal koo fenn lu may ay sos ak i nar na la wóor ne bàyyi boo ñëpp di la teg bët da ngay deltu ginnaaw waaye doo jëm kanam ba mukk maa ngi leen di balwaq wasalaamaaleykum